boo doon lim ñu baax génn ko ca la ngay lim du mat ne moom ku baax la ne Cheikh Sidi Mouhamadou Mountakha Mbacké Sidi Bakar ne ku baax la ne ku yiw la ku yaru la ku sell la ku maandu la nee moom mi day nettali rekk sànq nee muy wax ni dégg na ko muy waxtaan lu jiitu màggal gi waaye liñ naa nit daal mënula joxe lu dul la mu am la mu joxe nag jikko la te mooy jikko yonent Yàlla Muhammad moom la digal ñépp na ñépp jub na ñépp jubal na ñëpp juboo